li waral woote bi mooy coalition les serviteurs euh, bokk ci mouvement bi des serviteurs bokk ci yeneen mouvement dañoo engagé ci élection législative falum ndaw réew yi ndaw réew mi ñu fas yéene cee dugg joué ci benn rôle bu am importance marqué ko def ci loo xamante ne kenn mosu ko def ci élection législative yi loolu nag étape bi ci njëkk mooy nga waxtaan ak sénégalais yi waxtaan ak presse bi waxtaan ak sénégalais ñu xam sa projet xam sa yéene xam ne tamit lan nga bëgg lan mooy sa objectif kon mën naa ne su amee objet wu mm, jàkkaarloo presse mën naa ne loolu mooy objet bi mooy waxtaan ak sénégalais yi ci ñu xam ñu lan moo ñu tax a jóg ak it lan mooy suñu yéene rawatina fii ci département de Mbacké nga xam ne grenier électoral ak base électorale bu am doole la ci Sénégal di représenter lu bëri ci réew mi ci plan économique ci plan religieux ci plan social kon loolu moom moo waral euh, jàkkaarloo jàkkaarloo bi lan moo tax coalition les serviteurs lan mooy suñu projet li nga xamante ne moom mooy suñu projet mooy dañoo xool situation Sénégal li mu bindoo réew mi fi mu toll jamono ci nga xam ne fii ne nii rek bi ñu waaj a dugg léegi ci salle ñu muy annoncé benn euh, détenu boo xam ne dafa dee ci loxo euh, police pour le moment la la version bi am jamono ji nga xam ne kenn démentir ko démentir ko mooy torture maanaam métital moo ko ngeen xam ne kon démocratie sénégalaise dafa dellu ginnaaw bu baax a baax chaque jour ñi ngi am ñi ngi dégg wala ñuy gis ay xoqatal jaay doole néewal doole démocratie Sénégal di dellu ginnaaw bu baax ñun les serviteurs ñu bokk ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne démocratie bu néewee doole rek c'est parce que loi yi dañoo néew doole te luwaa bu amul bu jaarlu yoon rek c'est parce que l'assemblée deful liggéeyam te kenn mënoo assemblée waxoo député kon député boobu nag ñun moom moom lañ bëgg a indi sénégalais député boo xam ne Macky Sall lu indi loi wax ci terrorisme ku ne ku ne xam ne ne la loi sur le terrorisme bi nga xamante ne après événement mars yi lañ ko lañ ko voté bu fa wala di fa nekk bu fekkonte ne nee ko lu neex Macky Sall rek loi jàll parce que loi boobu tey jii moo tax képp ko bëgg a manifester te autorisé wuñ la ko ñu mën laa fekk sa biir sa buntu kër barricade la loolu loi boobu ma ko renforcer te leer luñ ko sénégalais yu bari loi boobu tamit moo indi tey képp ko jàppale ci manifestation ñu ma laa jàppee flagrant délit tëj la tëj bu gaaw ak yeneen ak yeneen muy dellu ginnaaw yoo xamante ne démocratie sénégalaise daf ko dellu ginnaaw ngir ay loi yu bon yoo xam ne mi ngi ci réew mi loolu mën na mën naa ne bokk na ci li waral coalition les serviteurs bëgg indi ay ndaw yu bees ci assemblée nationale waaye tamit bokk na ci li nga xamante ne waral na it coalition les serviteurs nga xamante ne Pape Djibril Fall moo ko bokk na ci li ko waral mooy demande boo xamante ne yi yu bëri yàgg nañ ko demandé Papa Djibril Fall naan ko dañu bëgg nga teewal ñu assemblée nationale li ngay wax ci télé ak ci rajo bëgg nañ mu weesu fi fi koy waxee fii nii mu egg ci mm, assemblée nationale boo xam ne da ngay gën a am plus de légitimité ñu lay déglu gën a bëri li ngay wax it mu gën a am doole nga xamante ne danaan toog lu yàgg nit ñi di ko envoyé ay message di ko envoyé ay vidéo di ko ñaan ngir mu def politique kon loolu tamit na ci li li waral coalition bi juddu suñu projet apporté euh, à l'Assemblée nationale un de député mooy yu yoo xamante ne du bokk député yu xam ne ñuy dox ci yar la xam nga député yi nekk assemblée bu mu taxawee bu ñu amee niveau ministère bu ko jox day tiit député dafa a niveau man dama doon proposé sax élection yi di ñëwaat ku amul benn niveau bi bu nekk bu ñu nangu nekk candidat niveau nag bu mu aju cat ci ci diplôme waaye dañ ko natt ba xam ne kii am niveau ñu ñu soog ko bàyyi dem teewal ndax luwaay dafa laaj xam-xam pour xam li luwaay di wax loolu mooy ñun ñu ñu ñu ñu ko indi mooy directeur yoo xam dañuy am yar ba pare seen lépp teg ko ci xam-xam. deuxième question bi mooy li nga wax ci diggante. Euh, loi bi nga xam ne moom la bëgg indi mooy dañoo gis ne daara état bi deful dara benn effort ngir daara dafa nekk système boo xam ne dañ koo multiplier par zéro fàtte ko ne ñu gis ne ñun bépp Sénégalais bu nekk Sénégal état warul sàggane moo xam loo mën doon ak ci loo mën a nekk. même fekkee que système bi état bi jëlu ko dugal ko ci école di ko forcer ñëpp mais ki nga ne waajur dafa tànn ne man boobu nan la ko mën a dëppalee jamono ba nit ki mën na ci gis boppam ci digganteem ak boromam waaye tamit ci digganteem ak àddunaam waaye jël système boobu rek mel def ko lu ignoré ko nga xam ne man sama exemple laa jël bi ma nekkee daara def naa fa 10 ans musuma lekk dërëmu état moo xam ki may jàngal état fay ko wala daara ji état indi ko ndox ndox naan sax ko may si kat xam nga loolu te man may sénégalais samay papa sama yaay ñëpp dee sénégalais di fay impôt ma doon koo xamante ne man fii man état yurlu xanaa sama jàng ne ma dara waaye booy man état te man may sénégalais te ñun ay junni junni junni junni sénégalais kon jàpp naa ne système boobu dañ ko war a faat loolu mooy luwaa dooleel Sénégal dooleel daara bi nga xamante ne dañ ko bëgg a jaay doomi ko Touba jaay ko fépp a ndax kilifa yi ne yaa refusé voté luwaa bi nga xamante ne moom euh, yaa ngi ne damay damay defar euh, Sonko dafa koy ay fleur sànni mu la rafet te wax ci moom la rafet nit boo xam ne moom la rafet da koy wax loolu wàññiwul dara ci sa ci sa mbaax day am ñaar day wax ne wax sa mbaax morom wàññiwul dara sa mbaax ñun ñun nagaluñu kenn ku ñu attaqué la ni ñu waa Sonko di attaqué noonu la ñu waa APR di attaqué ni noonu léegi nag fee li tax ma wax ko mooy dama xam ne nit boo koy di loo xam ne nekku ca waaye ko war a leeral bu ko nee di la attaqué nag nga xam ne moom moo bëgg di la attaqué rek loolu laaj bu pour ñu xam ne ñun Ousmane Sonko du suñu noonu parce que Pape Djibril bi muy def analyse da doon wax ci situation réew mi ay nit jël ko ñoo xam ne dañ leen presque xaw am nu demee ñu ne leen wax leen lii ñu wax ko di wax loo xamante ne ñun ñu bëri bëri di gëm nañ ko defe ne kii dafa attaqué dafay attaqué Ousmane Sonko te demewul noonu la laa doon leeral ci kàddu yi ma wax noonu sax c'est sûr que am na ñoo xamante ne bu suba ba ngoon jot li xëy mooy fexe ba Pape Djibril Fall ak Sonko ko affirmé a ban intérêt lañ am ci Papa Djibril Fall ak Sonko nekk ay noonu ñoom ñoo ko xam mais man dama man maa def sama interprétation ma ne est ce que nekkul dañuy bañ ñii bu ëllëgee lu mel ne élection 2024 su ñëwee mën nañ leen sonal ñaar ñi buñ am buñ bokkee liggéey ensemble mën nañ leen sonal man maa def sama interprétation boobu ça n'engage que moi sama seen seen interprétation encore une fois ça n'engage que moi balaa presse bi ma génne fii naa mais ce vous allez mettre en mal et ils ne sont pas détenus